asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo après ma wax si Pape Matar Sarr wax si Aliou Cissé wax si Sadio Mané mënuma bañ a wax si Pape Ousmane Sakho doomu Tëngéej bi jour bi xamante ne tey franchement jox nañ ko le plus beau but devant Aliou Cissé devant Sadio Mané mais loolu rek suñu waa ji gagné nga xam nga gagné nga respect euh, si ñu xamante ne voilà euh, dañu am tuuti Sénégal kenn ki di coach bi kenn ki di suñu meilleur joueur di Sadio Mané nga fotoog moom mu nekk mbégte ci bu baax a baax mu nekk nag ñu ko dalan ah. léegi sax ñun ñaar ñu waroon def interview malheureusement temps bi xoj ñu à peu près ak bi xaw a bougé un peu mu bougé xam nga ne jigéen ma fi waroon nañu def interview bi mais xam naa ne euh, yoon yoon yemul ci benn en tout cas devant a Cissé Aliou Cissé gis na crack bi gis nga bii bu mu dugal xam nga instant yi amatul euh, naan est ce que xam na xamu ko wala nangam nangam instant yi leer na a mille pour cent que ne gis nga saa yi lii yi wax ci moom c'est excellent reprise bi de fleuve bi mu dugal. ñu ngi nuyu Aliou Cissé di si ñàkk Aliou Cissé dina sànni quelques cadeaux su ma waajee fàttewu ma la naa la gëstu gën a liggéey et pourquoi pas venir en Europe ce qui est malheureux dans tout ça lenn rek moo si malheureux mooy Aliou Cissé ngir yàlla bu doon xool yéen Afrique mu baax tuuti wala yenn championnat yi mais boo néewulee Afrique rek boo néewulee si cinq grands championnats yi rek Aliou Cissé convoqué la mais c'est extrêmement difficile c'est ça qui est malheureux dans l'affaire alors que dans qualité xam football parfois day am ay qualité yu xam ne day nekk ci yow am ku nekk sax Real wala Barça lu nekk si moom parce que day am yeneen atu lu xamante ne football moderne la soxle xam donc physique si la bokk intensité bi répéter les efforts placement intelligence de jeu loolu yëpp c'est des yu xamante par exemple man personnellement sama joueur c'était Benafa mi ne extraordinaire mooy daan football mais ñoo ñoo gën a baax carrière c'est pas parce que ñoo ñoo ko daan football yéen yéen a ñooñu football bi lii war consigne dañ ko respecté dañuy def lii war teggi xel yi def passe décisive ñu compté passe décisive but ñu def but pendant sa temps la waaj muy def am na ay qualité yu ne sama ñu naan kii moo daa football Messi wala sax Cristiano Ronaldo Benzema wax ka Nasri wax ka mais pendant sa temps benn Benzema dafa dem liggéey yokk cere doole ñeex y' a pas que les qualités Benzema ñëpp buñ koy gis ne mais c'est mais extraordinaire mun naa saan Benzema mais dafa dem yokk cere doole ñeex liggéey bu baax a baax a baax a baax pour pour nekk benn level bi man pour man dans un cadre de travail bu xamante ne tegal nga ko Pape Ousmane Sakho ak lii di nelaw ci moom mën nga am jour bu doy waar damay joxe benn exemple Vinicius si parti patata ñi si xel gis ne gaaw na ay am na qualité yoo xam ne boo ko amee mu nekk ci rek mën na nekk un grand joueur maintenant nag il a ñu jox ko programme bi Cristiano Ronaldo waa Real Madrid ñoo très intelligent programme bi xam Cristiano Ronaldo moom la daan topp di entraîner dañ ko

mais dafa fekk mu am ay qualité yu xamante mo ngi ci moom Pape Ousmane Sakho c'est la même chose am na des qualités de dribble explosivité mën a tirer euh, voilà euh, parfois dans un match mën nga jaaxle ni mu génne taf taf ces qualités là sont là juste que niveau bi mu nekk mooy poser problème moo tax dans un cadre bu xamante c'est l'équipe nationale du Sénégal c'est le pays il y a Sadio Mané à côté il y a Pape Matar Sarr à côté Pape Gueye Gana Gueye Kalidou Koulibaly Edouard Mendy ces joueurs de classe mondiale booy football ak mais sa yow sa football day gën a génne boo mënee football ñu boole ñu dàq football yow club bi nga nekk mais c'est normal que rek da ngay toj da ngay wane carrément donc man pour man euh, pour man tey jii récompense bi ñu ko def déjà lu mu mérite mais bii bu doy waar la dugal loolu dañ ko tegee ne euh, de l'autre côté je me dis dina ka parler a ak booy bi booy bi tamit dundaloo ko yaakaar pour que statistique yi mu def daaw mu def lu gën a doy parce que maa ngi doon dégg gis ne équipe bi di Ligue des champions fii Afrique rek mu ko doon demandé pour vous dire que c'est un excellent excellent joueur et que man franchement fierté la ci man tey ma def ci moom vidéo mbokk yi mu ne ko vidéo bi ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV.